Ousmane Sonko Bassirou Diomaye la choisir man bëggoon naa ba ñu tëjee bët Bassirou Diomaye mu nekk ci biir prison moom mu nekk ci biti ni muy woote nañu dem marché ko bu woote woon boobu nañu marché pour génn Bassirou Diomaye ma xam ne bëgg na ko mais tey nii man bu doon may mbokk Bassirou Diomaye dinaa def attention xoolaat. wala ñuy def attention. am na ay candidat am na ci ab ci biir Pastef ay candidat déclaré wut parrainage nekk ay maire gagné ay élection am base ci ay dëkk yu dëgër yu wër am base yu tëgër ci ay dëkk. kan ngay wax non damay wax rek amay base nekk candidat. Dakar Thiès ak feneen amee kàttan moom Bassirou Diomaye dañ ko gagné ci dëkkam ba mu dëkk te du dëkk bu en 2017 Sonko naa gagné non non non non waxuma critère non damay yi en 2017 Ousmane Sonko n'a gagné nulle part et aujourd'hui il est le chef de ne veut il est en prison comme comme moom Sonko nee naa la Sonko li ko tere nekk kan déclaré candidat man sama analyse politique mooy décision cour CEDEAO te cour CEDEAO moom li mu ne ñoom dañ leen war a jàpp ci yoon li ñu def gouvernement dafa respecté procédure bi moom ak Bassirou Diomaye yépp la boole mu désigné ko alors que li dal ci kawam moo dal ci kële man doon naa réfléchir te yow yaa wax sa question. pourquoi ngeen di pourquoi. non may mën a non non non xaaral xaaral Cheikh Oumar may mën a yow da ngay analyser. Cheikh Oumar bu nga pare laaj ma. bu ma tontee nga ne pourquoi ñuy xalaate nii. yow yow yaa wax ne Ousmane Sonko ba mu fi démarré en mille 2017 2019 dañ ne salafiste la bàyyi ngeen débat boobu. bàyyiwuñ ko. yow ci sànq ci sa wax nga ne bàyyiwuma ko bàyyiwuma ko benn yoon sànq ci sa wax nga ne. waaw boo gisee Bassirou Diomaye nekk numéro 2 c' est parce que il est salafiste donc Ousmane Sonko n'est plus salafiste c' est maintenant Bassirou Diomaye. pourquoi pourquoi ngeen. mais mais mais dans toutes les organisations dafa am des radicaux euh, des euh, modérés des moy des des des des des. ñu topp la ci euh, ñu topp la ci radicaux. pourquoi. waaye ñu topp la ci radicaux waaye léegi xam nga xam nga léegi dama lay topp. yow yaa wax. waaw yow yaa ma posé question léegi nee nga radical la radical la. non ma radical la dama ne dans toutes les organisations. day am ñu am ngëm-ngëm. Euh, ultra gauche gauche conserva euh, gauche conservateur euh, gauche radicale yooyu yëpp dafa ay courant dafa am. xam nga man bokk naa ci parti de gauche. waaw man damay réclamé ci courant. waaw ba ma nekkee foofu am na ñu nga xam ne dañ may ne lii laa. parce que bokkuñu courant. mais le salafisme n'est pas un courant reconnu dans l'ex-Pastef et concernant. yow da nekkoon ci biir Pastef ba xam courant yi. concernant non xam nga je suis journaliste j'observe. oui nous ñu taxawoon. on est acteur politique. Euh, assumer ko. ñu xam ko non non non kon nekkatoo ci politique. kon nekkatoo ci politique bu courant demee bay laqatu ci beneen parti mooy mënul assumer li mu doon ci terrain politique lañ nekk. concédons que nekkul salafiste mais ses positions sont proches de ses de ses de ses de ses de ses. Euh, mais mais mais Cheikh Oumar est-ce que débat bi ci sur ses appartenances mais mais mais mais Maïmouna est-ce que est-ce que tu est-ce que tu contrôles le débat. je le contrôle je ne place pas de mots bu ma nee acceptons nga relancer. tu peux me pousser à fond bàyyi ma boo ma bàyyee boo bëggee ma wax li may génne yëpp da nga may bàyyi ma wax sinon du génn. waaw waxal maa lay déglu. gis nga ce qu'on a 2021 bi ñu jul génn bii ñu génn jëm tey il faut beaucoup de courage pour analyser li xaw Sénégal Sénégal réew la bu nekk ci biir réew ñëpp am réew yu bëri yu ñu wër la situation internationale ak les force politiques ci sont ci ñu nekk yëpp kuy jàng rek xam nga politique xam nga nan lay nan la ñuy réaliser kuy làqatu kuy defeeñal ak lépp nit ñi am nañ màndarga yoo xam ne boo ko bàyyee rek ñu analyser ko wax ko quand on attaque notre notre système religieux quand on attaque notre on se démarque de notre système de religion ici démarqué carrément attaqué ko carrément am na nu ñu lay tuddee yow sa bopp xam nga loolu fii Sénégal courant religieux yëpp yàgg nañ fi nekk mais ay équilibre lañuy taxaw ak détermination état li may wax sàccu ma ko fenn te yow xam nga ko j'ai dit les différents li ñu dund période bi yëpp xam nañ ne numéro 2 wu Sonko yi ni mu ñu topp si Sonko ay tendance nga dafa ku ci nekk am na looy représenté yow sa bopp say analise dinaa la génneel mu boo waxee dañu génne say analyse yu nga xam ne génne nga ko. waaye tey yow laa toogal. Oh, donc moom. tooguma ko waa Pastef. waa déglu rek moo tax ma ne la moom dañ ko choisir parce que am na courant bu mu bokk bu wuuteeg courant ñeneen yi ñu choisirul. wala yi non da nga may bàyyi ma wax ba pare nag. yaa ngi wax ba tey non non non non déglu rek donc. benn choix Sonko dafa opéré wu ci benn clan benn camp par rapport à d'autres et j'ai dit bu doon politique tong la ñeneen ñi ñoo engagé wu wut ay parrain ñu ne kenn du leen jàppale bloqué leen bañ dem kenn du leen plan a tas parti jàmbur oui d' kii nit tamit ñu jël ko ba mu ba mu des tuuti xaar ba nga xam ne léegi dara xejatu fi parce que moom ci boppam dafa retiré candidature am parce que xam na ne dara xeju fi li mu doon yaakaar ci CEDEAO ak ci cour suprême euh, euh, daf euh, dafa dafa tax suuf mun ñëw ne ko yow dama lay choisir te ma ma mais maa yow dal li dal sama kaw moo dal sa kaw mën nga ma jàppale man ma jàpp ne nga déglu rek ma wax même bu fekkee ne te bu ma laaj dara keneen ne man mun naa ko jàngee ci politique dong ak man fi ma jaar ci politique ci politique dong mooy naa créer le ci man ñu ñeneen ñi bëggoon yëpp taxaw wane ne bëgg nañu du ma leen jàppale keneen ki bëggul mënul def dara maa moom ñoo nekk ci prison naa ko def candidat comme ça buy am ak bu dul am yëpp man maay décider ndax dina am ak man maay décider du am man maay non da ngay bàyyi li may wax c'est très important xam nga Bassirou Diomaye mënul def dara moom Sonko mooy def lépp képp ku taxawoon ne da ngay def éliminé na la dem wuti keneen ku nga xam ne mënul def dara lu dul moom lu mu ko def te kooku li dal ci moom moo dal ci kawam moom bu dul nekk candidat kii mënul nekk